li nga ko honorable comme tey ni ñu koy gisee rek suba léegi autorité yaa ngi ñëw yow nga ñëwoon def sa devoir mooy ñëw voté bi nga ñëw voté ba pare ban message nga am pour joxe ko ci élection bi xam ne mooy élection au bi ki xam ne Mor Seck mooy candidat bi ak suppléantam bi di Seydou Sakho en tant que leader la ngay wax ci élection bi. bon di sant yàlla bu baax te di gërëm président Macky Sall. moom mi nga xam ne moo tànn mais tànnal ñu choix boo xamante ni yombal na suñu liggéey. parce que nag élection yi amul benn problème. mooy honorable Mor Seck mi mu tànn ak honorable Aïssatou. foog naa ne loolu it lu ci am solo la. ndax bu ñu tànnaloon candidat yu yu yu jafe tamit. vote bi dina metti campagne bi dina metti mais gis nañ ne alhamdulilah campagne bi sant yàlla. vote bi tamit nit ñi ñëw nañ voté si jàmm. te am nañ ci yaakaar bu rafet rafet te li ñuy ñaan rek mooy Koungheul jël première te am nañ ci am nañ ci njort parce que nit ñi ñëw ñëw nañ voté ak plaisir ak bànneex kon wane nañ ne li ñu leen tànnal bëgg nañ ko te foog naa loolu rek moom moo ci am solo li ñu ñaan rek mooy ñu jot a ñu gaaw ñëw ñu yeggali voté ba nga xamante ni tey première bi ñu bëgg si Koungheul dinañ ko mën a am ok première bi comme ni ñu sañoon nee na am plus de amuñu ku ñu jongantel bulletin blanc moo fi nekk Euh, choix bi benn rek lay doon muy moom euh, léegi nag mbir mi moment bi ñu ngi ci cappaandaw gi parce que quelques quelques heures moo ci des ñuy def décompte bi en tant que leader bi nga duggee voté ba génn sa xel dal na mais tim ban message nga am pour ñoom ñu war a présenter foofu euh, mais nangu dafay gën a yombal dóor. Mhm. parce que xam nañ ne Koungheul fii moom ku fi ñëwoon tamit dañ lay dumawaat comme nañ ko daan defee. kon ñaata candidat bi xam nañ seen bopp. bu ñëwoon ni ñu koy defee ci élection yi passé yëpp noonu lañ koy defaatee wala nu ko raw. Mhm. parce que nag élection yi. ay nit yu conseillers aussi ñoo koy voté conseil yi ñoo koy voté te tànnoon nañ leen te yàgg na tànn nañ président Macky saal kon ñeneen buñ fi ñëwoon tamit foog naa ne wax ju yàqu la kon ñu ngi leen nii ñu ngi yaakaar bu ñu am si ñoom ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla dëggal mooy que buñ demee teewal département bu Koungheul te am nañ ci am nañ ci njort bu rafet parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ seen taxawaay tax am nañ yott bu rafet ne bu ñu demee dineen am taxawaay bu am solo ci pour département bu Koungheul dëgg la département bu Koungheul am na lu fi am waaye nag ñun ay député lañ ñuy remercier waale population bi aussi bu ñu jàppee fii aussi ñii jàpp ci côté bii foog naa liggéey bi day gën a yomb mhm. dina gën a tax aussi surtout ñu nekk benn ndax mbooloo moom mooy doole te bu ñu nekkee benn foog naa ne département bu Koungheul ñoom ñoo ciy bénéficié wu te am nañ ci bu rafet que ne dineen joxante loxo entre assemblée ak euh, au conseil ba nga xamante ni dineen mën a xëcc pour indi ci département bu Koungheul mbir a law mu nekk ci campagne bi campagne bi yàggul mais jot naa boole ay leader ci département bi ñoom ñëpp ñu nekk ci gannaaw Mor Seck loolu tey ànd googu ñu ànd pour defoon campagne bi loolu loolu yow loo ko sentir loolu kay mbégte la rek en tout cas ñun de soit bi ñun dañ cee mos a kontaan ñun loolu ñun bokk nañ ci ñi ko njëkk a bëgg parce que wax dëgg yàlla xam nañ ne lu jaadu la lu jekk la yàlla dogal na rek wax dëgg yàlla ñaar lañ daan am bii paa ñu am benn ba ñu ngi ñaan président Macky Sall aussi mu mun ñu dollil parce que nag surtout jigéen ñi jigéen ñi soxla nañ ko tey bu ñu dollilee aussi loolu département bu Koungheul dañuy gën a mën a taxaw te fii président Macky Sall moo ko moom su suñu baree ay ay xeexkat yu taxaw wala ay défendre ñoo xam ne dañ koy défendre bu soobee yàlla xelam day gën a dal mhm. élection yi fi passé nag ñun sant nañ ci yàlla waaye nag bëggoon nañ lu ëpp lool mhm. te xëy na ñi am li leen may ci ñun lañ jugee du ma noppi di ko ci ñun lañ jugee te loolu mënoon na ñàkk waaye dootuñu ko accepté dootuñu ko nangooti mun munoo bokk ci ci ci mbir mi ba pare nga ne da ko yàq loolu duñ ko nangoot président Macky Sall na moom dafa baax yooyu yëpp mën na ko baale mhm. waaye ñun si suñ bopp dëkk ci Koungheul mhm. ñun loolu duñu ko nangooti munoo bokk ci mbir mi ba pare di yàq ci mi di añandoor ak ñi di reerandoor ak nit ñi mhm. ne da ngay continuer loolu dootul jàllati ndax nag président Macky Sall ñun dañoo xam fi mu ñu jëlee ak suñu mu ñu kon dañ koy gunge ci politique bi nga xam ne mu ngi koy def mais département bi aussi dafa am loo xam ne soxla nañ ko ku bëgg département bu Koungheul foog naa ne war ngaa mën a gunge président Macky Sall si liggéey bi muy def ndax soxla nañ ay yoon soxla nañ courant soxla nañ ay ndox naam def na fi waaye bëgg nañ mu gën a yokk kon nag ku gis loolu te bëgg département bi war nga koo mën a gunge mhm. ci politique yooyu nga xam ne indi na ko ci Sénégal incha allah comme daal pare ngeen ànd pour liggéey pour lu soxla département Koungheul en tout man jox naa ñëpp loxo te maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu joxante loxo suqali département bu Koungheul ba nga xamante ni lépp lu ñu bëgg dina dina am soobee ok ci fan yi ñu jëm ni rek la war a installé yéen tim seen assemblée nationale ginnaaw bi ñu leen falee ngeen nekk député yi pare yéen ngi koy préparé na ngeen koy préparé ak est que am nga looñu si mën wax loo xam ne askan bi mën a baax nam majorité bi ni mu daan toll tolluwu ko waaye nag ñun ñoo gagné te nit bu gagné da ngay tiitaru xam ne yow danga nga gagné ñi fas yéene xam ne sas la aussi su ñun parce que nag surtout ñuy liggéey yi liggéey bi def ci am solo ñun ñëpp nañu dem liggéey te xam ne population bi moo ñu yónni te loolu dina gën a yombalal président Macky Sall liggéeyam te am naa ci njort bu rafet man tiituma ci assemblée bi tiituma ci parce que député yi ma gis dégg nañ candidature Lamine Sall Mamadou Lamine mais nañ am nañ am fukk nañ am fukk ñu de toute façon ñun lépp lu ñuy def dañ ciy ànd ndax gis nga fukki nit yu déggoowul benn nit bu déggoo moom moo ko ëpp solo te ñun Benno Bokk Yaakaar fas nañ yéene ba candidat bi ñu président Macky Sall tànn fas ñu yéene war ko dinañ ko jàppale ñu ànd liggéey cinq ans yi nga xamante ni incha allah population bi tànn nañu ko. ok jërëjëf sant voilà merci jërëjëf. Euh, jërëjëf bi ñu paree ak euh, honorable député Fanta Sall ñu ngi nekk ak honorable député El Hadj Mor Dieng yow tim ñëw nga pour def sa devoir comme ni ko tey conseil yëpp dafee ñëw wata si euh, watal ki xam ne mooy seen candidat di El Hadj Mor Seck lan nga ñu mën a wax tey ci élection bi ak seen candidat bi xam ne moo fi nekkoon tey. jërëjëf Makhtar. Euh, di am kontaan bu baax ci élection yi nga xam ne tey ci lañ nekk tey te pareegul mu des tuuti <clears throat> ni ma ko gisee jàpp naa ne la ma leen doon wax dama laan wax ne bu nañ fexe ba département mi ngi nekk cinq quatre cent quatre-vingt-quatorze conseillers mhm. nañ fexe lu mu tuuti tuuti nañ fexe ba quatre cent cinquante conseillers wate mhm. yaakaar naa bu koy manqué du bari waaw da jàpp naa ne fii ñu toll nii mhm. am nañ quatre cent yu wala quatre cent yu teg te ba léegi ni ñi des nañ bon candidature bi ñun ñëpp ci d' accord Koungheul ñëpp ci d' accord leader yi Koungheul yëpp ci d' accord benn bokk yaakaar Koungheul ñëpp ñoo ci d' accord ci candidature bi. ñëpp xoo seeni conseil ñu ñëw am na tey communes yu xam ne boo ko seetee ay deux personnes lay manqué trois personnes bi gën a bëri mooy quatre personnes. kon nga war a xam ne nit ñi am nañ ci yéene bu rafet ci woteel benn bokk yaakaar. wote candidat bi nga xam ne mooy Alaaji Mor Seck mu nekk maire de Ida Mouride incha allah mu falu nekk conseil nekk au conseil territorial fii ci département Koungheul. département Koungheul. même question rek la ñuy laaj rek comme tim yéen faloon nañ leen fi bësee ñu a teew ci assemblée nationale moom tim tey mu a dem ci conseil économique et environnemental nan ngeen nar a taxawee liggéey ko pour njëriñu département Koungheul. loolu la ñu fas yéene département Koungheul moo ñu tax a jóg njëriñu département Koungheul moo ñu tax a jóg ak waa département Koungheul ñuy waxtaan li aju ci au mu di ko doxal lu aju ci assemblée nationale ci député yi ñu di ci waxtaan ñun itam ñu di ko déem a doxal bu neexee yàlla fépp luñ mën ci taxawu département Koungheul ci lu xam ne njëriñ la bu jëm si ci département Koungheul danañ ko taxaw incha allah lépp luñ ci man tey jàpp naa ne nag foofu moom boor boobu nekkatuma ci nekkatuma ci gan. nekkatuma ci gan quoi parce que jaar naa fi 2012 ba 2017. mais booba nag dama nekkoon député boo xam ne député opposition laa woon. lu bari boo ko bëgg a wax xëy na duñ ko déglu wala duñ ko xam. mais fi mu ne incha allah lépp lu xam ne moom la Koungheul yittewoo ak li wër Koungheul ci département bi suñu ko xamee luñ ci mën danañ ko def danañ ci taxawal lépp luñ ko xam ne mën nañ ko dañ ko def danañ ci taxaw temm xar ci suñu tànk tuuti incha allah jàppale suñu bopp. jàppale département bi jàppale président Macky Sall loolu lañu fas yéene. beneen question bi rek balaa ma jox euh, mu ñëw ci euh, léegi nan ngeen na a taxawee parce que tamit gis nañ ne au bi am na lu mu defar leneen gisuñ ci kenn ko opposé yéen ñëpp ci ànd liggéey ànd nekk ci gannaaw moo Seck pour fal ko ndax loolu day nekk luy continuer wala am nga loo xam ne tamit dañ ko defaraat pour ba bennoo bi ñu bëgg seen bokk bii mën a nekk. li ñu fas yéene man su ma ko mënee lépp lu xam ne dañ ko yëngal na responsable yi waxtaan. leader yi nekk ci département bi ñu waxtaan seen numéro fa tey ñu doxalee ko suñ ko defee rek bo booba jotee comme li xew tey rek mooy xew bu ëllëgee incha allah. Mhm. te loolu far nañu ne di ko dox luñ mën ci département bi di ko dox. Mhm. ci nit ñi ànd nekk benn ànd jubo di di nekk benn lépp lu ci kenn song wax dëgg yàlla ñëpp jàppale la su ba loolu day mat ci incha nu mu gën a rafetee. loolu lañ fas yéene. monsieur le bi nga xam ne ay maire yu nekk ci département ñu seen conseil ñoom gis nañu yëpp ñoo leen ko ñooñu lan la jokkoo naa ak ñoom amaatee amul benn maire bu xam ne jokkoo huma ak moom mhm. wala bu amee bariwul li ëpp jokkoo naa ak ñoom fuñ toll ba ci guddi gi ak nu ñu a ñëwee ak buñ ñëwee nuñ war a doxalee lépp wax nañ ko ba mu rafet te la nga xam ne na lañ ko waxee woon lépp yàlla dogal ne mairie remplir nañ ko def ko niñ ko bëggee woon waaw loolu mooy li fi am euh, comme ni ñu ko laajee jëm rek monsieur le maire de Ribescal Madiama Seck ñoo ngi ci def sa devoir pour ñëw voter moment bi ci takkusaan gi mën nañ ko waxee noonu sax Eh, lan nga ñu mën a wax ci eh, déroulement élection bi parce que ñëpp xamoon nañ ne yaa ngi ci biir bi campagne bi démarré ba léegi pour jàppale sa natango maire di eh, Mor Seck lan nga ñu wax ñu tey ci bis bi tey. waaw ah, jërëjëf sant yàlla ba mu bëri Matar bis bi liñ ci mën a suñu borom parce que doomu aadama bu sabab lool élection yi nu mu dóor lool neex nañu trop ndax même démb ñu ngi yaa nga ko am. Mhm. ñu ngi ci 494 yaakaar naa ñu ngi ci ay trois cent quatre maa ngi wax ñu xool lu mel ni waa Koungheul parce que ñoom ci biir dëkk bi la ñun def nañ sondage ci àll bi commune boo jël quatre moo woote wut soit kon ñooñu jeex na ngant du ñàkk ndox nit dana feebar dana def lu ne léegi nag ñun ñu ngi sabab loon quatre cent tey nga ne yaa ngi ci quatre cent yi mooy six loolu dañ ci sant yàlla ci wat bi nu mu dóorulee neex nañu trop am nañ ci lu kawe suñ jot parce que foogoon nañ ñi daan jàpp benn li benn candidat bi day gañe day gañe jeex na mais dañoo bëggoon seet population bi lan la leen seen candidat jaral lan la leen seen au conseil jaral lan la leen seen liste bi leen président tànnal jaral da ñëw nañ nag bu baax ndax booy seet lu mu wéttuwar fu ne àgg nañ 80 pour cent 80 pour cent nag yombul ñu koy dégg ci élection yi Sénégal kon loolu dañ ci sant bu baax département Koungheul sant ci conseil yi nga xam ne muy conseil commune conseil départemental yi nga xam ne ñoo ñëw def seen droit ba yóbbu ñu quatre-vingt pour cent pour ci sunu ñaar ñi nekk sunu candidat moo sekk nekk titulaire ay mi nekk suppléant ñi ñaanal leen nag incha allah bu ñu tëjee gën a rafetaan njort nag yaakaar bu baax xam nañ ne ñun gañe nañ ndax benn liste moo fi am ak balan mais wóor nañu ne incha allah balan gañewul kon nañ tàmbali ñaanal leen xaar nag décision bi nga xam ne mooy mujj ñëw di 6 heures ñi nga xam ne ñoo tiim bureau bi bañ dippi ko la fa waaye jàpp naa ne am ngeen victoire lañ wax ñu ñaanal leen nag ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy représenté Dakar ci kaw yàlla yóbbu leen fa ak jàmm dañuy représenté fa population Koungheul da fexe population Koungheul gis euh, ñoo nekkoon ci campagne bi ànd ceeg Mor Seck. ci fan yi néew yi dox ngeen fu nekk est-ce que mu ngi si ñëwaatal ci déroulement bi na ko doxalee ba mën a convaincre tous les conseillers ñu mën a ñëw voté si parce que li nga wax ko léegi benn bulletin man secret ngeen am ba def nit ñi mën a ñëw. waaw secret bi daanaka am bu ko jiitu rek xam nga fu ne tànn nañ Mot Seck bii jafewul am na loo doon posé ci gannaaw te suuf bii dañoo toog waxtaan wax dëgg yàlla ci ñu doon ay candidat ci li ci ëpp ak ñi nga xam ne gënuñ kenn mënuñ kenn muy wàllu maire mais population bi ñoo leen fi teg sept mois huit mois. Mhm. li ëpp nag dañ noon Mot Seck mooy seen candidat gis nga ko mu yomb bii itam ñooñu ñoo taxaw di waxtaan ak askan bi te ci lu yomb la daanaka ajuwul sax dem ci àll koo fi dem da nga seet benn nit rek moom mu waxtaan ak conseil wala ci téléphone ñi sàkku leen na leen nañ ñëw wooteel candidat bi ñu nangul ñu ko kon dañ leen di sant ci loolu di leen gërëm rek mais nekkuloon lu am benn jafe-jafe mais nag mënuñ lu rek sant ci yàlla population bi nga xam ne nangul nañu ko mënoon nañu ko bañal da mhm. leen ci mën a sikk mais nangul ñu nañ ko kon yomb gi bu amee ci ñooñu la daal kontaan nañ ci ba mu baax ndax wax amul yeeyu askan am na ñu ñëw woot amul nafoore amul ñu ñëw gis nañ ñëpp parti bu ne am na ñu leen fi ñëwal parti bu ne am na ngànt mhm. loolu mooy Sénégal kon xëy na yàlla dajjal na candidat bi moo nekk ci xol yi xëy na ci doxalin yi la waaw parce que yeeyu askan ñëw nañ nafoore sama commune ñëw nañ woote si sama commune commune six personnes ñoo woote atam sax man ci si si laa bokk kon ñu woote cinq ngànt day am am na jigéen bu ñu naan dafa xaw a feebar maa ngi xool Sadio moo woote maa ngi xool xal ci kenn quatre moo wooteel parce que ñun xam nañ fii si commune bu si nekk ñee dem di woote waaw loolu daal dañu jàpp ne xëy na bëgg-bëgg ñu ñi la ci candidat bi ak sens boo xam ne tey aye gii baax na torop ñu dajal ko muy sunu sens leneen li ci des nag xëy na xool comme sunu ñaari candidats yi kii moom ci àll bi la dëkk comme man mais ay sa sax mii ngeen xool ba xam ndax Koungheul am nañu wooteel parce que tàmm nañ nag woote quatre heures tew bi fu ne ñoom ñoo ko mën a yokk ñin ñi jógee fu sori am nañoo gont na ñi bi bu amee ñu nekk ci kër yi en tant que moom it nag candidat la jigéen ñu dem wëri ñi ci biir dëkk bi wax leen ñi ñëw woote ñu jéem a dem sax maximum quatre-vingt-cinq wala quatre-vingt-dix fu mu ne wootaa yàlla bi ñëpp def nañ seen waree. ok jërëjëf monsieur le maire. Mm-hmm. jërëjëf.